Sénégalais yi nii woote gi ñu woote la ci jubluwaay bu njëkk mooy waxtaan ak Sénégalais yi ndax président Khalifa sal wax na ko léegi bi ñu defee seen forfaiture ba léegi déggu leen conférence des leaders Yewwi Askan Wi addu ci boobu ba léegi ñi ngi waxtaan ña ngay apprécier li nga xam ne moo juddoo ci waxtaan googu lañu am yéene ëllëg partage ak Sénégalais yi loolu di objectif bu njëkk te jàpp naa ni objectif bu am solo la fas yéene waxtaan ak sénégalais it ci li nga xam ne mooy jafe-jafe yu réew mi tollu te mun naa ne jafe-jafe yooyu daanaka fukki at yi wees dara dañu ci day yokk rek waaye wàññeekuwul moo xam li jëm ci dund bi ndax barki démb rek ni ko honorable député ay Mbodj di waxe bis bi mu defee forfaiture ci suñu lis defe naa mooy samedi ci suba bés boobu ci 10 la yokk njëgu carburant bi essence bi te yokkute googu ci kanam lay jëm loolu nañ ci waxtaan nag ëllëg bëgguma ci dugg ci détails yi dinañu waxtaan ci situation wu droit yi ak liberté yi ndax képp koo xam ne ne nga d'accorduma ak makisal moo xam ci léppam wala ci lenn ci ni muy doxalee da xam ni cible nga ci makisal Sall Cheikh Omar Diagne mi mu jàpp ci ay caaxaan yu kenn xamul ne ko rëpp ci kaso bi symbole la ci ndax ñépp ñi tax xaw ne d'accord ñoog moom ci agenda LGBT bi nañu xam ni tey ñi ngi ci viseuram moom ak ñi ko ngemb ci bitim réew noonu la nekkee ci beneen ak beneen gis ngeen ni ku fi nekkoon activiste ci juróomi at yi weesu fexe nañ ba am luñ la tiiñal pour mun la créer le dossier kon bu nit ñi jàpp ni poli acteur politique yi rek la concerné cest diir dire démocratie la Macky Sall bëgg faagagal ci réew mi ci ban anam parce que su wax dictature nit ñi dañuy gis image wu yenn réew yi nga xam ne parti politique amu fa char de combat yaa ngi fi ku génn wax dara ñu duma la tëj la déedéet loolu mooy dictature bu flagrante bu gën a boo xam ne dafa fës mais dictature bëri na ay xeet fekk fu réew mi fu mu tolloon ci démocratie te ay conquête ak ay xeex ñoo ko indi ba foofu nga delloo ko gannaaw ba tey tey tey tey sénégalais bu nekk na laaj boppam lan mooy différence situation bi ñuy dund tey ak situation bi ñu doon xeex 2011. sénégalais yëpp tiit fi mu toll nii ni ñu tiitee woon 2011 noonu la ñu tiitee loolu rek wane na recul am na te fu recul démocratie am rek avancé de dictature am na fa parce que ñaar yooyu nii la. foo fu démocratie delloo gannaaw dictature def na pas fu démocratie ave demee kanam dictature dellu na gannaaw kon yooyu yëpp lañu fas yéene ak crise multisectorielle bi ci njàng mi ci ci paj mi ak ci yeneen ak yeneen loolu lañ ne dinañ ko dajale moom ñëpp nag waxtaanee kook Sénégalais yi ëllëg bu soobee yàlla ñu bëgg a wax yi nag nii au-delà de tout li commencé tey euh, monsieur le maire Ahmed Aïdara defe naa nit da ngay am dégg-dégg fi mu ne nii kenn amatul kenn koo xam ne dina am xel ñaar ci ay nii wii nii non ñëpp xam nañ ni léegi wii la loolu lu fës la Macky Sall la muy door tey mooy projet troisième candidature man du wax troisième mandat parce que il faut que ñuy def différence entre ñaari bu ñu dugal ci boppam ni mun na am troisième mandat mënu koo am bu defoon ay pexeem ba ne de ah, valide nañ candidature it mënul am troisième mandat fii Sénégal loolu dafa war a leer ci bopp ñëpp kon nañuy wax troisième candidature fi mu ne nii li mu door mooy projet troisième candidature te fas yéene ko jàllale lu dul jaay doole nit ñi loolu lay commencé ma bëgg wax nag ni bu dee sàggan nañu ba ëllëg manifestation amul nañu xam ni 18 mois yi di ñëw manifestation dootul am senegal noonu la simple moom day làmb de bu nooyee du koo xam ne am na xel bu muy téye boppam ci dara su làmbee mu nooy nañ xam ni fi mu jëmee ñun mooy manifestation dootul am Sénégal rawatina nag manifestation opposition moo tax li conseil constitutionnel def c'est de la haute trahison saaxu ak ñi mu àndal la ñu def c'est de la haute trahison c'est des délinquants de la loi waa conseil constitutionnel te tôt ou tard nag dinañu rendre compte def nañu seeni forfaiture dem làqatu barikadew ñu jox leen ay garde jox leen ay avantages yu dul jeex jarul ñuy làqatu kenn du leen song kenn du leen dóor kenn du leen attaqué waaye tôt ou tard ils rendront compte devant cette loi qu'ils étaient qu'ils étaient censés servir et dire devant ce droit qu'ils étaient censés dire professeur Ngouda Mboup dafa wax keroog ni euh, Saddam Hussein keroog biñ koy euh, exécuté dañ ko exécuté ndoo en même temps que au magistrat boo xam ne dañ ko àtte ci anam googu yéen a ngi gis li xew actuellement Tunisie parce que magistrat yi ay nit lañu il faut ñu delloo seen xel du ñu lenn lu dul nit buy lekk ceebu jën di naan ataaya li tax ñu mën leen naw mooy li ñu bokk ñun ñëpp te ñu voté ko muy loi di constitution ne leen yéen ko war a appliqué ñu appliqué ko ni ñu ko war a appliqué bis bu ñu ko teggee fii amatuñu suñu respect monsieur le président de l'union des magistrats génn fii mbër mbër mbër di wax naa day menacer nit ñi amatu leen suñu respect parce que respecté wu leen ñu parce que respectat dafa war a mutuel dégg naa nag gannaaw bi Pape euh, Ousmane Sakho defee Pape Omar Sakho defee heureusement que Ousmane sax newu ci bi mu defee njombeem ba pare dégg naa Serigne Bassirou Gueye lay ngem lay waajal fi mu ne nii pour mu dem valider la forfaiture de 2024 magistrat yi laa bëgg a waxal delloo seen xel du ngeen yàlla du ngeen yonent ay nit kese ngeen mënuñu saa yu Sénégal nekkee ci guuta benn magistrat lay doon bu dee procureur benn magistrat lay doon bu dee doyen des juges wala groupe magistrat lay doon bu dee conseil constitutionnel wala cour suprême boo leen dajalewoon ñoom ñëpp matuñu fukk saa su réew mi waree tàkk ñoo ñoo koy taal est que loolu mën nañ ko continuer nangu au nom de quoi des avantages yi leen Macky sal di jox ñu wax leen ko nag c'est pas une menace c'est une promesse tôt ou tard ils de ces forfaitures ñuy wax sénégalais nag nii gis nga ñun nitu jàmm lañu nitu jàmm mooy doxale ni ñu doxale ñu tooñ la ba ñëpp àdduna yëpp gis ni tooñ nañ la mu ne fang nga ne sànniwuma xeer dóoruma ay fetal yoruñu ko sax doxuma jëm pale waaye dinaa dajale sénégalais yëpp ñu waxtaan nag te waxtaan boobu dina leen ci gaa gaaral tam lan mooy doon agenda bi ci at yi di ci weer yi di ñëw kooku ku bëgg jàmm moo ko bëgg moo koy def mu musuñu ñoo gis manifestation bu ñu autorisé problème am fi amul saa yu problème amee manifestation bu ñu autorisé wul la te moyens yi ngay déployer pour ne da ngay da ngay tere manifestation am moyens yi nga soxla pour encadrer manifestation tollu noonu tollu ko kon manipulation yi ñuy def dem monter seeni vidéo ñëw naan waaw kii lu mu wax yow mii di policier boo gisee vidéo demal jëli kooku sénégalais la mi ngi fii demal jëli ko nga toog fi nga toog naan woo ay ñoom Khalifa Sall naan leen lan ngeen xalaat ci li manipulation yi ñuy def foog ni mun nañu jouer ci conscience su ndaw ñi naan leen yéenay seen chair à su ngeen fa dee it yéen perte ñoom seeni doom ñun suñuy doom fii la ñu ne ci dëkk bi di jàng ci école publique yi amuñu garde du corps amuñu dara gis nga fixation boobu ñu def suñu njaboot sax déjà c'est suspect ñoom suñu mënul jot Ousmane Sonko nu ñuy def ba jot doomam mooy seen yitte fi mu toll nii moo tax lu jol suñu njaboot Macky Sall la te bu amee it njabootam dootul am jàmm fii ak ilaa yow mi diin loolu moom dañ koy wax mu leer daa jël rek suñuy njaboot def ci fixation waaw doomam nii doomam nële nun suñuy njaboot a ngi fii ci réew mi bu ñu doon dem ci manifestation bu ñuy dem ci manifestation ñoom du ñu xam ne suñu njaboot a ngi ci biir manifestation bi parce que la ñu bëgg ñun xam nañ ko seeni plan xam nañ ko dama ne sénégalais yi gis nga kuy ut kuy def sacrifice ba ba bëgg ko wut rek la ñuy laaj sénégalais yi bëriwul de ñii toog fii ñooy def sacrifice chaque jour nag di risquer seen bakkan di risquer la prison lu ne ñu dégg ko subaat ngoon guddeeg bëccëg di ko teg seen ndodd seen i njaboot di dégg loolu sacrifice daf koo mën a ëpp lan moo tax ñu koy def alal moo tax ñu koy def ñun ñu dara nguur man de nekk naa député ba jóge fa weer wu dee 400000 francs laa doon fayeeku li ci des yëpp dama ko joxe nekk naa maire un franc duma ko jël du ah, du salaire du carburant du dara ñun soxlawuñu dara ci politique bi jaamu yàlla lañ ci ut ñun servir notre peuple ñun duñu ñoom de ñoom ñi da dajji kees yi yor ay milliards jël seen i doom seeni doom ñi ngi diggante Dubaï Canada ak feneen ak feneen ñun suñu doom ngi fi bokkuñu ak ñoom ñoom ñi sàcc xaalisu réew mi rawale seeni doom kon su dee ñun ñi ngi def sacrifice yu toll noonu démb sama waay bu ji jur bu jigéen dafa ma woo ne ma dellu seegoo Ziguinchor ma ne ko tant que manifestation bu weesul du ma ñëw mu ne ma tey ngaa dellu si ndax li may dégg dallu sama xel ma ne ko yaay gis nga mercredi bu soobee yàlla ñett yi moo mën a am daañ ñu bàyyi ñu dem def suñu manifestation ci jàmm ñibbisi si jàmm réew mi continuer doo xam wala dinañu xëy jàpp ñu ñun ñëpp te bu boobaa ñoo ko war a gérer wala ñu def pexe bu ëpp loolu it waaye bu ci munti am rek man ci ñiy jiitu laa ciy bokk parce que du ma leader boo xam ne day woote ba pare dem làqatu ji mu tegal ma ci ni léeg-léeg de xoolu yaay mooy wax waaye li nga wax yëpp dëgg la yàlla leen yàlla aar kon ñun dañoo am njaboot am ay way jur lañuy dégg suba ba ngoon jar ñu koy teg suñu ndodd doy na ci souffrir waxuma laa ñu naan ay voilà dañoo bëgg a utiliser ñun suñuy xeex jeunes yi ñoo tax yéen jeunes yi yéen a tax ñuy xeex parce que Sénégal mën na baax ba jaaxal ñëpp waaye du musa baax ak Macky Sall ndax jaay na réew mi loolu dinañ ci dellu si ëllëg jaay na réew mi jaay na ko tubaab yi jaay na ko naar yi jaay na ko turc jaay na ko chinois yi ñun moomatuñu dara ci réew mi ce travail de réappropriation de notre souveraineté mooy projet Yewwi Askan Wi du leneen kon bu leen kenn essayer jouer seen conscience génn leen massivement ñu daje place de l'obélisque yow cadre de banque bi yow haut fonctionnaire bi yow taximan bi yow commerçant bi amul ku ñu bàyyi génn leen parce que c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu bu ngeen ñëwee ba foofu nag la ñu bëgg a waxtaan ak yéen dinañ leen ko wax parce que dañu ne loolu ci cadre bu spécial occasion bu spécial lañ koy waxtaan ak yéen lii mooy woote 8 juin bi ñuy araf nag Macky xam nga yi ñuy def nii yëfu xale la di def ay capture d'image naan su Sonko ngi nii adresse su Déthié ngi nii man sama kër ñëpp a ko xam comme nee nañu ñoom léegi xam nga ku jóg doo mus a dégg ñu ne Benno Bokk Yaakaar day def manifestation nga dégg opposition bi ne damay def contre manifestation musoo ko dégg suñu yoon newul ci ñoom il ne nous intéresse pas jaru ko ndax ñoom ñooy reyante seen biir fu ñu daje bu ñu paree seddoo xaalis bi ñu sàcc ci réew mi paaka yi génn jaas yi génn kooku jarul ngay dem ci ko musuloo dégg ñu ne euh, Benno Bokk Yaakaar day def manifestation opposition bi ne day def contre manifestation musoo dégg ñu ne ñoom dañuy def manifestation opposition bi recruter ay nervi pour dem ne dañuy xeex ak ñoom musul am du ma bugguma wax mbër parce que bugguma tooñ une profession waaw bugguma wax mbër parce que bugguma tooñ une profession ndax mbër yi la ci ëpp li ma gëm mooy ñu yewu lañ ñu conscient lañ te xam nañ seen bopp waaye nervi yi ñuy recruter di di leen essayer armé naan leen dem leen daal ci mosoo dégg opposition recruter ay nervi amul nit boo amee sa kattan am sa formation nit jël la ne la yaa may aar mun nga dem defi loolu garde du corps waaye jël la ne la demal dal ci diw ci kaw diw demal attaquer manifestation diw ñi ñàkk bopp weesuwul loolu te ku ko def nag yaa na nga xam ni sa bakkan a ngi ci xottu gerte parce que personne ne peut en à peuple bu dee force de l'ordre ak li ñu yor ci gànnaay ak lépp bu peuple jógee ba jóg ñoom ñoo ko mënalul kuñ fi ndax ba ne la yow demal attaqué xamal ni yow yaa ngi tayle sa bopp ndax fa nga dëkk fa nga nekk nit ñi dañ fa régler seen problème ak yow kon ñi ngi wowaat ñëpp réew mi dafa toll en moment extrêmement grave Macky Sall gannaaw bi mu lajjee lajjaat li gën a firndeel lajjam mooy réew bu nekk en guerre nga xam ne tey bombardé nañu immeuble yëpp ba réew ma dara taxawutu fa ci réew googu lay dem di saraxu ne leen jox leen ma blé jox leen ma maïs moom 10 ans yi lan la def ba ñu am ba ba lan la liggéey pour ñu am blé am maïs fii ci réew mi tey ku fi yoroon poulailler mënatoo am aliment parce que blé bi Ukraine la doon jóge wala kii bi maïs bi moom lan la def ci 10 ans tey mu jël euh, avion am dem di lambar lambar yi dem gis Poutine naan ko dimbale ma nga bàyyi poor bi ndax ñu am ñebbe ñàkk jom weesuwul loolu c'est ça qui en jeu actuellement na sénégalais yeewu ñun fitna taxu ñoo jóg waaye kenn mënul tere ñu mener les combats qu'on doit pour ce pays guerre psychologique bi ñuy joué nag mënul jàll kon te li ci topp it foofu lay daane bii pas dañu ne rassemblement bi ndakaaru la waaye la résistance doit se faire sur tout le territoire national loolu moom na ci nañ ci dugal seen bopp maatam ba Ziguinchor ndakaaru ba tàmba diaspora bi lépp résistance bi foofu lay foofu lay demee duñ leen may jàmm duñ leen may fu ñu nooyee parce que may ñu jàmm may ñu fu ñu nooyee loolu laa bëggoon daaneel ñu ngi leen gërëm ñu leen di sant